ndax dafa am kaaraange wute kaaraange wute nag bu buñ ko waxee maanaam yow danga doon nit koo xamee ne danga weex dunq buñ waxee weex dunq bërëb bi ngay liggéey bu fa coow amee dañ la koy xëpp waaye yow mën ngaa bañ a sax bokk ci coow li ñu la ci walla problème bu am rek ñu ne diw fekke ne ko walla diw bokk na sax walla diw gisoon na ko loolu boo amee ndomba gi dootul dootul amate maanaam wute lay doon wute bu waxee nag wute maanaam fépp fu musiba di am fépp fu problème di am yow moom doo ko fekk problème moom doo ko fekk sa biir kër ga nga nekk sax bu fa coow doon am dangay génn ñu ne la coow amoon na sa ginnaaw wala coow am ba pare nga doog a ñëw toujours yow da ngay wute boo nekkee nit ñoo xam ne ne say noon ñu lay fexeel wala ñu nga nekk si entreprise bi ñu réunion dara ba war lu ko def toujours loola doo ko fekk day fomm waaw luñ la war a def rek loola moom du àntu mukk gis nga boo tegoon yow sa alal nga xam ne ne jël nga sa xaalis teg ko nekk ci biir kër gi ñu bëgg koo sàcc feeg yaa ngi fay nekk sàcc du dugg fa nga nekk waaye loolu ak ndomba la nga xam ne nit ki takk na ko di wuti dara ñu ko say fexeel doo antu mukk nga xam ne ne ndomba goo xam ne nag kaaraange total la kaaraange total nag képp ku ko am danga am ubbeeku ndax dana am làmmiñ yoo xam ne danga siy mucc te boo muccee si làmmiñ rek muy wàllu cat suñu borom dana la ubbi moom moo tax ñun moom suñu mbir dana la seetal wax la say sarax ngay génnee say sarax kenn du man si yow dara ngay génne say sarax say mbir di dox ngay génne say sarax say lépp di baax ndax am na ñoo xam ne ne euh, du warunoo sangu ñoo xam ne ne sarax suuru lan war a def ndax dafa am nit ñoo xam ne ne gis nga sarax moo leen may lu ne gis nga boo fexee ba xam sa sarax yi di ko génnee dootu